allahu xayun samadun wa baaxi subhaanahu suukanafin wa waaxi allahu xayun samadun wa waaxi su ngeen déggee ab yaat yooyu day tegtale ni ñi ngi ci bis boo xam ni dañ ko baaxoo daan ko woote ci ndigalal cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ni moo ne ci buntub seexul xadim di xalifa sénéral de murit ndigal bàyyi ko ci moom ñëw ci sëriñ xaadim mbàkke mi nga xam ni muy xalifa soxna ja bintu cheikhul xadim di taawu cheikhul xadim ndigal loolu sëriñ ahmadu mbàkke moom sëriñ baara moo koy jottali waaye sëriñ xaari mi ngi feggoo ak ñi mu soxna Faati Ja sëriñ Taala Mbàkke Pakala mi xalifa sëñ Mamoor Mbàkke la ak sëñ Ahmadu moom mu ñu waxoon léegi mu war a jottali kàddu di di di xalifa sëriñ baara Mbàkke bokkuloo ji ak sëriñ Habibu Mbàkke di xalifa sëriñ Moodu Seex ak sëriñ Fallilu Mbàkke di sëñ Alaaji moom sëñ Basiru Moor feggoo ak sëriñ Lamine ak mboolem njaboot gi ñu teew fas yéene jottali ndigal li bàyyeekoo ci sëriñ Muntaxa na ñëpp teewlu ñu déglu kàddu yooyu bàyyeekoo ci sëriñ Ahmadou jëm ci taalibe yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ah bokki jullit yi bokki taalibe yi ah, noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Xaadim ah, mii nga xam ne mooy xalifa soxna Faatija mbakke ah bi mu jotee ci ndigal ci sëriñ Muntaxa mii xalif général de ak sëriñ Abdoulahi mu jaar ci sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur muy xalifa borom saam ndigal li mooy màggal gii nga xam ne dañ ko daa defal soxna Fatou Dia Mbacke taawub sëriñ Touba ah, mu jàppoon ko eh, ñaar fukki fan ak juróom ci baraxlu wi waroon dëppook dimanche fukki fan ak juróom-ñeent eh, ci weeru tubaab yi nu nekk avril bi nee na màggal googu yi Euh, sëñ bi da koo jox ndigal ne nañ ko soppi maanaam euh, fëmmuñu ko waaye dañuy soppi doxin wi doxin wi mooy dafa bëgg buñ ci àggee kenn ku ne nga màggale ko fa nga nekk ci diggante jàng alxuraan jàng xasi xasida zikar lépp loo xam ne lu baax la rek ak barndeel fu waay nekk rek mu def ko yéen a yool bi soxna Faatija ak njabootam gi nga xam ne ñoom ñoo fi ñoo ñoom ñoo fi nekkoon ah ca kenn ku ci ne ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ñoo nekk ci boppi kër yi eh, bu bis bi masaa ñëw da nga daa tabbal eh, eh, seen bis sa bis bisub soxna si ku demee sëriñ xaadim sëriñ Basiir Moor bisam da ko tàbbaloon ci bisub soxna Faatija sëriñ sëriñ Taala Mbàkke moom sëriñ Maamoor Pakala bisub sëriñ Maamoor Pakala da ko tabbal ci bisub soxna Faatija ah nun ñi it Ahmadou Mbàkke bisub sëriñ Mbaara ñu tabal ko moom it ci bisub soxna Faati Ja sëriñ bu mii moom sëriñ Moodu Seex bisub sëriñ Moodu Seex moom it da ko tabal ci njabootu soxna Faati Ja ci bisub soxna Faati Ja ah, kon nag sëriñ Xaadim nee na eh, eh, mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi soñ ñëpp ci ñu jëfe ndigal loo yi loolu eh, yi mi ngi santin nag mbooleem ñi nga xam ne daana seq ak ñoom bis bi tàmbalee ko ci daayira yi nga xam ne ah ña ña ca jiitu mooy waa kër sëñ Daaru Asan Njaay ah ñu nga ne ñoom ñoo daa eh, yor bis bi ah wàllu organisation bi ak waa kër Serigne Mansour Diaw ak daayira yi nga xam ne ñooy daayira yi turandoo yi ca ñooñee xëy na ñi ñu tudd ñoom ñëpp sax waaye buñ ci tuddee ñaan rek danañ bale ña ci des ku demee ne soxna Faatija Mbàkke moom Serigne Basiiru ah soxna Faatija Mbàkke moom sëñ Abdoulahi borom dër bi soxna Faatija Mbàkke eh, moom sëñ Modou Roqeya ak mbooleem turandoo soxna Faatija yi nga xam ne Eh, ñoom ñëpp bu bis bu ma saa ñëw ah, daanañ jàpp ci bis bi <coughs> ak bokk na ci it ñi nga xam ne nii danañ leen sant eh, ba tey muy ku ne waa kër sëñ ah, ñoo xam ne ñoom it dafa am lu ñu seq kër gi ah, bokk na ci ba tey eh, ku ne waa kër sëñ Mour Gueye Jamoo yi ñoom it dafa am luñ luñ demee ci kër gi bokk na ci it am na ñoo xam ne nag moom mën naa ne ñoom dañoo seqoon bis bi muy ku demee ne sëriñ Cheikh Guédé Mbacké ak mbokki musóobe yi nga xam ne ñoom mën nañ ne eh, daanaka liñ doon ci soxna si rek lañ ci doon ci ñu ñu daa am taxawaay bu rafet boo xam ne daanañ ko taxaw ci bis bi kon sëriñ bi nee na <clears throat> ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ah, ak waa xur yi nga xamante ni moom it kon nag xam na ne ñoom it dafa am nuñ demee ci kër gi muy daayira xur yi ah ñoom it ñu ngi leen di sant ak ak mboolem daayira yi nga xam ne dañoo aju ci kër yi yëpp waaye muy diggante doo ngay laxasaay yi ak ak daayira soppe yi ak ak ak ak moom mbooleem fu daayir daayira rek ci aju ci kër soxna Fatou ji rek mënuñ su leen lim waaye ku ne na ñëpp xam ne ñu ngi leen sëñ bi nee na ngi leen di sant ci leen xamal ne kon lool daal mooy ndigal di buñ ci àggee ah, kenn ku ne fa nga nekk loo man ci alxuraan xasit ak berne nga def ko ngir jëm soxna Fatou Dia ak njabootam gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi kon loolu mooy ndigal yi da ngeen kàddu yu jot yooyu bàyyee ko sëriñ Ahmadou jëm ci bokk yi ak ci taalibe yi fu rek na nga jàng alxuraan ak xasaayit ak salaatu na bi ak bépp askar bu waaye ne ci xelam rek mu di ko def mu def ko yéene yool bi soxna Faati ci bintu Cheikhul Khadim soo gisee jotaay bi mel ni ndax rek la ñëwee te ndigal li mooy fu waaye ne rek defe ko sa kër loolu mooy ndigal sëñ taxaa mooy ndigal sëñ Abdou Mbàkke yàllay buur mu ne ci buntu kër Mamour Diarra kon loolu mooy woote bi na ko ñëpp bàyyi xel fu bàyyi toll rek na ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu